déet demeewul noonu de demeewul noonu man yow laa faral alors ñu daal di ñëw euh, militaire yi ba nga xamante ne moo amoon ca camp pénal bu Liberté 6 ah, démb ci euh, RTS lañu ko gisee ñun ñëpp ñu daal di fay dugg li ñu wane nag mooy euh, ginnaaw fuuy wala ya nga xamante ne amoon na fa gis nañ fa lu ay téléphone lu tolloo ci ay koppar yu bëri drogue ak i ay arm yoo xamante ne jéggi na dayo waaye doy na war tiital na it ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biti di gis lay xew ci prison bu nit lu la bett la. non. ah lu tax ce qui se passe dans les prisons. ak ah, lañ fa gis duñ fuyee rek. non non en fait euh, prison bi c'est de petits quartiers en miniature hein c'est ce que nous vivons dans nos régulièrement tous les jours c'est ce qui se passe en prison c'est des Sénégalais comme ñun c'est des gens qui sont issus de nos familles de mm-hmm. c'est des Sénégalais. loo mën a def pour tojee ko si bopp ji ndax da ko def surtout. Hmm. bu ñu. mettront les gardes pénitentiaires dans d'excellentes condition de travail. On dit, sur plus de 1000 et cinq 1500 détenus, c'est des brigades de 12 personnes qui les surveillent. Mmh. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. yow ñu ngay surveiller nekkuñu ci jàmm yow mii leen di surveiller nekkoo ci jàmm muy benn la qualité de traitement salarial des de, de, de il faut que ñu revoir ko à la normale à hauteur des autres administrations c'est le corps bi nga xam ne daanaka on les considère même pas qui m'excuse du terme quand je dis qu'on les considère c'est-à-dire administrativement et financièrement on les considère pas ils ont un statut qui est là qui doit être exécuté depuis qui leur permet d'avoir des avantages mu ngi foofu ci suuf ba tey ñu teg alors imagine une prison qui devait recevoir 500 personnes ñu ne la y a 1500 personnes mais le garde quelle que soit sa bonne volonté mais mille plats yuy dugg par jour mënu ko vérifier à moins que bu dee dañu bëgg vraiment lutter efficacement ils n'ont qu'à installer des portiques à scanner. ci ah. prison yi. waaw yooyu ñuy dem di ko installer ci ministère yi te amul benn njëriñ. nañ ko dajj ñëw installé ko au niveau des prisons soo tegee sa bool ñu xool ndax ginaar gi euh, ginaar rek la wala téléphone mu ngi ci biir ginaar gi mhm. boo tegee sa pomm ñu xool ndax puce baa ngi ci biir wala pomme kese la mhm. ils peuvent le faire moo tax sànq ba léegi j'insiste sur la volonté politique ah. ça c'est des yi nga xam ne tey jii le système carcéral sénégalais moo bon bon ba nga xam ne nit ki bu nekkee ci biir au lieu que mu pensé wu à s'amender à se refaire moom mu ngi structuré wu di xool nan lay gën a performer wu dans la délinquance en quoi faisant parce que il est la il n'a aucune autre possibilité cest di amul leneen lu ko prison di offrir pour mu pour mu defaru mm. je sais pas si tu comprends euh, mënoon nañu tey jii euh, comme ça se faisait Euh, jël leen euh, on les met à la disposition de certaines administrations sous la surveillance on a on a on a on a on a on a on a un parc supposément on a un parc de plusieurs centaines de bracelets électroniques mais il y a des bras valides yi nga xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi nga jël leen dugal leen ci kaso yi c'est-à-dire amuñu benn activité lu dul tëdd nelaw lekk tëdd nelaw lekk mais waa jooju sa waay tu développes chez lui benn benn benn beneen système mooy que comme fii tëdd nelaw la rek xaama xalaat bu ma génnee nu may dóoree mais pour xalaat nu may dóoree mooy que il faut mu am contact ak jii ci biti hmm. moo tax la plupart la plupart des grands coups la plupart des grands coups la plupart des agressions ça se prépare au niveau à l'intérieur des prisons la plupart des gangs s'organisent par affiliation au niveau des prison parce que libération xëyee na ko tey am na ñoo xam ne dañ leen kaas yi ci tabaski bi ñu génn kenn ki ba mu génnee euh, daanaka ñoom ñaar ñëpp dañoo delluwaat euh, kaso. kaso kenn ki daa rey nit kenn ki daal di sàcc. mu ngoog donc c' est par affiliation et ça se fait au niveau de donc il faut qu'on revoie le système carcéral mooy benn ñaar il faut que les gardes nee naa encore c' est des sénégalais comme toi comme moi avec leurs défauts et leurs qualités mm-hmm. waaw euh, garde comme n'importe quel Euh, soo ñëwee ne ko voilà teel lii sama pomme bi day jàll ba ferme les yeux je dis pas tous les gardes mm -hmm. mais des fois une faille mën nga tomber sur cette faille la moo tax dama ne il faut qu'on revoie ça on revoie d'abord ça mm-hmm. leneen li mooy la surpopulation carcérale tant que on ne lutte pas contre cette surpopulation mooy qu'on trouve des peines alternatives des gens condamnés à de petites peines pourquoi ne par les envoyer ailleurs ñu am lu ñu fay liggéey. travaux forcés par exemple. waaw liggéey fa mais cest di moo gën nga téye ay ponk lëmb ci benn kaso di leen dundal di leen kii mais ba après tu leur tu leur permets d'avoir de l'imagination mais ñooñu tey jii dans toutes ces administrations la wala ay toolu buur nu ñu ko doon waxee ñoon yóbbu leen fa au moins ils vont servir à quelque chose. Mm-hmm. ce serait il déjà un bon projet qui avait été fait par le colonel Bokane astafurlah général Bokane bi muy nekk directeur de l'administration pénitentiaire mooy seen usine bi ñu leen defaral ñuy def ay produits et tout mais il faut multiplier ce genre les prisons yi nga xam ne ñoo nekk à l'intérieur du Sénégal ils ont assez de terre yi nga xam ne mun nañ ko profiter daf ci en de telle sorte que def euh, du jardinage euh, de l'horticulture day permettre ku ci nekk boo génnee sax boo fa naree def deux ans deux ans yi boo génnee nga am benn cent mille wala deux cent mille booy téye redémarrer dans la vie mais c'est un peu ça parce que la prison au-delà de l'aspect euh, sanction y a y a la possibilité de réinsertion bi nga xam ne da nga ko war a may nit ki. Hmm. mais nit ki pour mu mën a réinser réinsérer dans la société mais il faut que nga permettre ko mu créer dara mu am dara lu muy téye mais malheureusement fii kur dugg caabi toogal geex na mais le bonhomme après il réfléchit. Et il y a pire dans ces prisons-là, je dis. y a pire. Mm. Ah oui. Il y a pire. On, a, on parle de téléphone, on parle de tout. Mais il ne faut pas oublier l'homosexualité qui se développe dans les prisons. Mm. ici. C'est une réalité. Les maladies et autres qui se développent dans les prisons, du fait de la promiscuité, du fait de la surpopulation. y a plein de choses, il faut qu'on dénonce. Mais tout est question de volonté politique. Hmm. ku jàpp ni que voilà parce que euh, ils sont en prison c'est des moins que rien et tout euh, wax dëgg yàlla tu rends service à la société il faut leur donner l'envie de redevenir des citoyens modèles mm-hmm. bu ñu purger seen peine ba pare génn le bon on a envie de faire ça moi j'avais fait un projet au niveau de la prison des femmes mm. de Liberté 6 bi j'ai euh, créé là-bas salon de coiffure un matériel et tout avec une personne personne qui m'est qui m'est très chère mais un an deux ans finalement personnel bi ñoo doon indi seen sœurs yi ak seen kii ñu fay ñiy jàng alors que moi le projet à l'initial bi ñu ko defee c'était pour leur permettre d'avoir des diplômes d'état euh, fexe ba nga xam ne ñii nga xam ne ñooy ku mel ni Pape Ousmane ku mel ni Mami mën a di parrainer les les prisonnières cest di boo fa defee un an deux ans booy génn da nga am sa diplôme booy génn da nga am benn pécule cinq cent mille danga am benn marin euh, benn marraine euh, nabu bi nga xam ne dina la accompagner les premiers mois nga ubbi sa salon ainsi de suite bon sa tombé à l'eau vrai mami xalaatoon nga ko lu mel ni ci téléphone yi ne la yaa ko doon wax de yu dugg waay